kon mbokk yi ginnaaw bu ñu sante borom bi subhaanahu wa taala julli su yenentem bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi am mbégte del siwaat ànd ak yéen si dars bi nga xam ne euh, moom la ñuy ànd ak yéen si àllarba bu jot ci heure bi euh, mu nekk dars bu am solo euh, ñuy sukkandiku si téere bi nga xam ne mooy muallimul qiraa di téere bu am solo boo xam ne day jàngale wàllum lecture si arab kon mbokk yi dañuy ñëw def euh, comme ni nga xam ne noonu lañ ko baaxoo defee euh, euh, fan yi passé ñu ngi nekkoon ci li nga xam ne mooy ijji boole bi kon moom la ñuy continuer su ri fa suri fa du ri ba duri ba tu ri دا توري دا ع ظو ما عظم ع ري ف عرف غو سي لا غسل ك بو را كبر كسر كثر حزن حزن ظرف ظرف